mbokki mbir yaa ngi bëgg a metti ci Awa Baba Thiam bu ñu sukkandikoo ci yenn information yi nga xam ne rek moom la ñuy joxe kile nag di Awa Baba Thiam daal di nañ koy teg loxo ba daal di koy defeere maanaam daal daal di nañ koy jébbal ci kanamu procureur de la république ginnaaw face à bi nga xam ne rek amoon na ci diggante mag enquêteurs yi ba fii ñi wax ak nag ki lee di Awa Baba Thiam mu nga rek ca cave du palais de la justice laata rek ñu koy wax ci ëllëgëm Awa Baba Thiam nag li ñu koy toppee rek mooy divulgation de données à caractère personnel ak menace de mort jëm rek ci ay message écrits dénonciation calomnieuse injure grave ak yeneeni mbir yi ñu ko bëgg a toppee ci jamono ji ñuy wax ak yéen itam rek bu ñu sukkandikoo itam rek ci li nga xam ne rek moom la aw Adamo daal di wax itam rek te dëggal information bile bi ni mel moo di nag kile di awa baaba caam nag dëgg la sax ci jàpp nañ ko te la ko wundu nag mu ngi jóge rek ci audio yi nga xam ne rek moom moo fuité woon te bi ñuy laajee nag kile di Babacar Diaspora ak keneen beneen waaye rek dañoo ne daal Awa Baba Thiam moo génne yooyu le audio ba bi ñuy laajee Awa Baba Thiam itam dafa ne rek ay mbindaanam ñoo daal di yóndee audio yooyu di ci saaga Salla Sow ci fàttali nag lépp rek mu ngi càmbale ci mariage doomam boobule di Khadija Tall nga xam ne rek moom la jël may ko frère Wally balaago Seck boobule di Seydina Alioune Seck mu jëloon nag cër nag daa di jox xaritam bile rek di Salla Sow nga xam ne rek moom la ko ndeyale woon na waaye nag boobule cër nag dañu ne woon daal am na keneen itam rek ku dul Salla Sow ku tudd Khady Kebe moom daf ko ndeyale woon mu mel ni daal ñoom ñaar ñëpp ku ci ne ndeyale na la waaye nag dafa ne woon ku ci ne kenn ki mooy ñëw ci en time bi keneen ki ñëw ci mariage bi loole nag moo metti woon sal sow ba mu jël rek vocalam daal di koy yóndee rek awa baaba caam ngir nag di mettit lu li mel ndax nag ci fàttali ki lee di sal sow nag bi mu ñëwee ci mariage bi daal di nay ànd ak rekk gàngooram indi teranga gu bëri ba ñu si wax sax lu lu ëpp trente million ba tax na nag yëf yi nag bi mu jàllee rek mu daal di message vocal kooku le di Awa Baba Thiam ngir rek di nakarlu li ni mel ojo yooyu nag bi ñuy xëyee rek ci ëllëg sa lañuy ñuy gis mu fuite ci réseaux sociaux yi ñu newoon fi itam rek ojo yooyu nag Awa Baba Thiam daf ko yondee benn influenceur influenceur bi daal koy yóndee kenn koo xam ne ku nekk international yor fa kooku nag moo ko daa di tasaare yëf yi nak noon lafa fa tëddee woon jamono ji ñuy waxak ak nak ci xibaar yi nga xam ne rek moom la ñuy mujjee am kile di Awa Baba Thiam daal teg nañ ko loxo daa di nañ koy defeere lu ci mënta njukki leneen lu ci tukkee itam rek dinañ leen ko yeggee file ci Dakar Media TV